mbokk ñuy suur ci Leewtoo TV nag xam ngeen ne Gris 2 lañ toogal tey Gris 2 nag am na combat loolu mooy lu leer gi ko tëgg mooy jëy seen Gris 2 maa di la ziar. waaw maa ngi lay fay Babacar di nuyu internet yëpp di rawatina waa Medina Fass Colobane Gueule Tapée Sànne ci Atar di nuyu képp rek kuy bëggee Gris di ñaan suma yaay mu yàgg fi di ñaan suma pap fi mu nekk yàlla yeesal yéen ma la ci koom. yal na yàlla yeesal yéen mu ci bépp jullit bu faatu barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, nga jóge ci combat ñàkk ko sa diggante Reug Reug ñi doon xalaataat kañ ngay am combat war a bëreel yàlla def tey jëy ah, euh, seen dagaroo sa combat ak Abdou Diouf loolu lu ko waral. waaw mais xam nga nit moom année blanche moom baaxul sax si ku nekk si dynamique waxuma la ci ku am defet moo tax bañ ci jógee tamit ñu ngi nekkoon ci lañu war a nekk di xaar bis Abdoulaye Ndiaye coordonné nañu ne dafa bëgg sama combat ak Elton mu dox ci mujjul sotti ci côté am après mu ne ma léegi nag Abdou Diouf nangu na te Abdou ñu ñaar ñëpp moo ñu gën a riche carrière pourquoi pas ñu bëre pour mën a relancer waat suñu carrière mu mel ni kon bu ma la déggee maanaam du sa combat bi rek lañ dox dox nañ la yàgg Elton ak ñeneen parce que dégg naa laat ci ay waxam mu ne doon na wax ak yeneen mbër mais yow affaire bi mësul nekk ci sa lan moo tax yow amoon choix adversaire yi wala lu tax loolu moom mu ne sa côté amuloon problème. ci woon choix man lu ma ëppoon importance rek mooy bëree ren bëree ren rek ak n'importe quel adversaire rek moo ma intéressé woon mais moom ba mu waxee nag dafa na ma yàgg Elton nag moom la nit ñi bëgg ma ne ko man je suis partant mu dem xool Elton nanguwul. Abdou Diouf nangu ñu bëre. Abdou Diouf bi nga jël lu tax nga jël ko lan mooy motivation yi bëgg relancer sa carrière wala danga nga yaakaar ne euh, war nga ci mën a jaarat pour relancer wu wala lan la wala da nga jàpp ne mag la ci làmb. non champion la rek promoteur bi moo ko choisir mais pas man man maa ko moom daf cee tombé rek ñu war a bëre mais ku mu ci demee rek damay jàpp ne man maa war a daan ku mu ci doon parce que amee naa bor suma ay supporters li war mooy mu ñëw wane beneen xar kanam ci làmb. est-ce que Abdou Diouf xam nga ko. Abdou waaw xam nga xam moom man moom mbër moom li ma ci war a xam lu bëri intéressé wu ma ci mooy Abdou Diouf en tout cas mbër la boo xamante ne du foowukaay musuma gis si làmb fuñ ko foowee fuñ koy foowee mbër moo xamante ne day xeex te day bëre daan na ay champion yoo xamante ne ñoo ma féete kaw ci lu bëri kon li war rek mooy ma ñëw def comme d'habitude ndax man mbër nu mu mënti demee rek benn méthode laa yor. mooy ñëw wane fulla wane fayda li si des ma teg ko ci loxo yàlla te noonu lay demee. benn méthode nga yor maanaam Abdou Diouf su la ko waxee parce que nee nga dee su ko foyee parce que dugg na Fass yaakaar naa huit wala sept fois yoo xam ne benn défaite la fa am est que loolu Gris 2 mu ngi siy bàyyi xel parce que say mag la bëreel daan leen ci làmb. waaw làmb moom continuité la rek boo gisee rek kenn ku nekk dafa am rek kuy ñëw jël revanche bi relève la mën naa am ñu ngi fa doon bëreel noonu dool du ñun kenn daal du ameel na Fass bor yoo xamante ne bu desee si làmb bu fi yàggee dina fay bor yi man loolu laa intéressé te incha allah suñu combat bi dina bokk ci bor yi muy fay. nu muy fayee bor bi ci bëre wala ci xeex. non ñaar yëpp ñu ñaar mënuñu bëre saa ñu xeex. moo ñëwee ne damay bëre Abdou Diouf sans xeex loolu ay caaxaan la rek maanaam moom dinañ weccante ay coups dinañ bëre ki yàlla dogal yàlla na ma yàlla may ndam rek ci koom. ci côté xeex boobu ak bëre yaa ak Abdou Diouf kan moo ci ëpp niveau kan moo gën a baax la xeex kan moo dàq bëre. waaw Abdou Diouf moom day xeex moom wax dëgg fa yàlla mais man moom wax dëgg yàlla yooyu yëpp man kiiwu ma en tout cas daal xam naa ne daal man la ñuy xaar ci làmb ci man la ñuy xaar ci lu bari waaw parce que dafa am ci luñ jóge wala ñëw wane ñu ko wala làmb ji man wax dëgg yàlla xaaruma ci moom dara lu dul arbitre sifflé ma attaqué koñe gagné incha allah. Hmm. loolu mën naa yomb. mu yomb ak mu yombul moom man garaawul mais en daal man moom. bu bi ne prive incha allahu rabbi ma def li ma war a def. Mm-hmm. combat bi nga jël nii am nga ci avalu écurie waaw bu baax a baax Abdoulaye Ndiaye wax na ko fi sànq Abbas Ndoye ak Père Tafa Gueye yëpp combat bi si seen loxo la nekk ak ci waa Fass te ñooñ ñooy Fass ñoo ko ñoo ko discuter ñoo ko sottil incha allah. Mm-hmm. combat bi foo ko fas yéenee pare ndax sa Sénégal wala da dem à l'étranger wala. ça dépend ci Père Tafa Gueye bu ma waxoon tey demal France ma dem. parce que avant combat bi toog nañ lu yàgg Batiste wax na ba dee pour ma dem étranger ma bañ parce que li ma bëggoon xam naa ne bu ma demee étranger boo moytul damay année blanche te am naa ci lu ma jóge mu war a deñ il faut ma toog fii ba pare lu may décider après door a dem waaw mais loolu moo ma teree tukki mais kon sinon depuis sama combat ba léegi du ma fi sax nekk mais boo fi nekkul woon nekk ci yeneen mën nga dem toog sax ba làmb ji doo bëre ren. kon loolu daal loolu moo tax nga toog pour am combat bëri wanawaat sa bopp. waaw loolu noonu man moo tax ma des dëkk bi ba léegi mais bu dul woon loolu du ma fi toog temps bi yëpp. mënuñoo jàkkaarloo yow ba dem tamit euh, maanaam te bu am fan yi ci làmb ji mais rawatina seen écrit muy Fass ak dàqu Papa Sow ak coow li ci dégg wax ji ci toppaat loolu yow en tant que euh, membre écrit bi loo ci man a wax comme kàddu. waaw loolu yaakaar naa waxoon naa ci bu woon yow sax mën naa man duma ci wax parce que tey kon li may wax rek ci combat laa nekk. amul benn importance pour ma nekk ci benn mbir di ci wax di si waxaat surtout wax boo xamante ne sax concerné concerné wu ma trop mënu ma ne concerné wu ma parce que tey ñaari xaaj yi ñuy wax yëpp sunu ay kilifa lañ Papa Sow sunu kilifa la même chose waa Fass tamit ñu fa nekk ñooñu boole yilif waaw li ma ci wax sàngara mooy tey Papa Sow sunu dernière euh, réunion Fass dafa taxaw foofu ne Gris Bordeaux mii gënumaa bëgg Maodo loolu wax ci réunion bi te loolu man gëm naa ko parce que man ak moom am nañ ay jaar-jaar mu nekk suma kilifa wala ay nuyu mais nu mu mën di demee rek adduna moom toujours rek lañ naan dëgg toujours moom mooy mujj ndax tey boo jëlee benn affaire bu xewee rek li gën a baax mooy nga def ci li lijjanti ko mu féete boor loolu tey mooy mooy yoon ci lu bari ba tax na bu wax ji bëree day dem ba kenn du xam sax raison bi day mel ni ay règlement de compte la fekk yow mu nekk seen biir xam nga ne fii amul réglement de compte ñàkk ñàkk teg affaire bi rek ci ci accès rek moo ko waral mais Papa tey ak Fass ñu nekk Père Ataba yi rek wax na ci nee na tey Papa Sow nee nañ dàq nañ ko Fass suba bu soloon blouson dugg entraînement Fass kenn sañu ko wax génnal kon loolu kon pour man dàq amu fa leen daal moo war a am mooy c'est lui qui décide buy dugg Fass foofu moom moo ko moom buy génn Fass tamit na fexe ba façon génn boo xamante ne bu toogee soxla Père Tapha Gueye woo ko Père Tapha Gueye fekk ko fi mu ne bu ma soxlaa woo ma bu soxlaa Gris Bordeaux woo ko bu soxlaa Abbas Ndoye woo ko ne ko ñëwal maa ngi fii lii laa bëgg nga def ko ndax loolu c'est possible affaire bi du àndandoo làmb garaawul ñun ñi ñëpp ci ay paa la ñuy mujjee nekk ci weneen mbir kon ay àndu kee moo tax ñii mer àndu kii loolu man c'est faux man gisuma loolu. loolu lu am. ànd ak Modou Lo dañ ne bokk na ci li créé affaire bi. c'est pas vrai loolu lu am. mën na am tey booy wax parce que du mut loo rek y a des gens luutul yoo xamante ne Modou Lo c'est le roi des arènes mais ànd am na yeneen champion yoo xamante ne ñu ngi foofu ci groupe bi te ñoom ñëpp ñu ngi ànd non bu dul dara dama ne comme du Modou Lo tey Franc mi ngi fa Gora Sock mi ngi fa Yékini Junior ñu ngi fa yooyu yëpp nga fa. kon du du ñu sible rek benn mbër mel ni moo ci intéressé gars yi. maanaam ciblé daal yaakaar ne Modou Lo rek lañu war a. affaire bi du loolu affaire bi du loolu li ma gis daal mooy Papa Sow écurie Fass wax na ko waxati ko do affaire yu juddu même bu fa juddoowul sax moom moom écurie bi ndax yaa ngi dégg histoire la keroog bañ demee ci bi dégg nañ fi papam jaar ak bi famille ma boole si tamit jaxasoo nañu façon jaxasoo boo xamante ne dara waru fee am lu ñaaw affaire bi daal. doone ko toogal ndax moogu moom boo naan nit toogal Papa Sow yëfam la waaye fa muy jëm tamit bu demee ba fu li fa jëm li ma koy ñaan mooy mu dem am benn entente am benn waxtaan bu muy def ak ñoom Abbas ak ñoom Tafa Gueye ba nga xamante ne daal dara du ñaaw ñëpp nekk ci jàmm parce que làmb du dërëm làmb du dërëm te ñi ko bàyyi xam nañ ne du dërëm luy paase rek la lu bëri jaru ko ci. tey bu la woon ci combat am ne la kaay jàppale ma si nga dem. loolu laa lay expliquer nii tey jii nii am na entente bu muy am ak kilifa Fass yi tey fu mu toog ku mu soxla bu ko neexee sax yor beneen écrit heure bu ko neexee ñëw Fass entraîné bu ko neexee yor beneen écrit te heure bu ko neexee ñëw Fass entraîné te ñu muy àndal ñoo ñëpp muy ànd ak ñoom te sans problème parce que moom xam nañ ko keneen intéressé wu ñu moom la moo am fu ñu jaar ak ñun am lu mu def pour ñun moo tax bu mu topp wax ci bari jeeg yooyu te boole si mu ngi jub combat boo xamante ne waru ko ñàkk. préparé na ñaari combat ci tiraillement ci ay werante perte ko facilement mu jëmaat ci bis boo xamante ne waru koo ñàkk bu mu toppaat ci wax ji di benn bennal di kii nii loolu jigul sportif bu doon suma mag la comme giri sax sax sama mag la bu doon dama nekk ci wetam dinaa ne ko grand affaire bi du fii redresse toi nga arrière taxaw concentré wu ci sa bopp te nga xamante ne fii c'est pas la fin du monde dara garaawu fi lépp rek dafa war a terminer ci jàmm mu tranquille yàlla defal ko ndam ci lu mu jëm. am na tamit benn seetlu bu ay nit def ba ma jot ba jot koo dégg sax euh, Aziz Ndiaye soxnaam dafa génnaat ni ñu koy jaalaat di ko ñaan yàlla yërëm ko taxare àjjana mu mel ni gisuñu fa Gris wala am na ñu koy ñu koy wax de. waaw man dama demoon man nekkuma fi woon man ma fekkoon Kédougou boobu patriotisme mi moo amoon euh, ay gan yoo xamante ne samay xarit lañu ma nekkee France damay nekk si ñoom walla moo fekk muy affaire bu choqué boo xamante ne démb ci àjjuma ji rek. dama fa bëggoon dem far mu guddi te jaala guddi baaxul mais Aziz ku ko xam nga xamante ne fu ma gisee si àdduna mosul jaar sama tur sama sëriñ rek la may wax ndax jofeel bu mu am si Seydi El Hadji Malick loolu nag keroog kenn waruñu fa woon jiitu ci kanam la ñu waroon nekk surtout ñu dem yóbbu ko ci sunu dëkk bi nga xamante ne moom la ñu yaakaar di ñaan yàlla Seydi El Hadji Malick ak Seydi Aboubacar ak El Hadji Mansour ñëpp teeru ko teral ko yàlla subhaanahu wa taala tàbbil soxnaam soosu si loolu lañ koy ñaanal di ko jaale bu baax a baax di ko ñaanal yàlla remplacer ko ci moom bu ko soxna si féete woon rek yàlla yàlla féete ko fu raw foofu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal mais Aziz moom wax dëgg yàlla kooku moom mooy loolu kooku moom wax dëgg yàlla sama sama sama mbokku taalibe la sama mag la. kontaan nañ ci yow. waaw ah, kontaan yëpp di gërëm rek Patrice Hébert nga xamante ne partenaire la tamit ci combat. combat bi hôtel arc en am na solo. Ciel Patrice Hébert nga xamante ne du sénégalais waaye yaakaar naa Sénégal bu ñu amoon benn cinquante bu mel ni moom du ñu sax dépendre si gouvernement. parce que nit la ko xamante ne foo ko fekk mi ngi créer emploi foo ko fekk mu ngi xool nit fu muy jaarale nit pour mu tekki loolu rek mooy métier am lekkul naanul soluwul simple mel ni du salaamaaleykum te foo ko fekk objectif bu àddunaam yëpp loolu la nan la nit di def ba réussir noonu la koy def taxawal ay société yu dul benn du ñaar du ñett te boo demee Mbuur Sulkata beneen hôtel a ngi foofu fii tamit arc en annexe bi mi ngi fi xam nga di créer ay emploi yu bari ci àdduna loolu rek moo ko intéressé te làmb ji da si doon dugg ba pare ni moom ñu ngi ko ci ñaanal yàlla yokk jàmmam yokk suturaam ak jabaram Céline ak toute l'équipe de l'arc-en-ciel euh, euh, promoteur bi dëgg sa combat ji loo koy wax ak loo ko mën a promettre ci bésu combat bi incha allah. waaw dina neex loolu tour de Gris 2 Gris moom loolu moom xam nga ne moom mënuñu ko sax yombal waaw ñu ko sax yombal incha allah di ko ci kontaan ci liggéeyam ak yomb naa liggéeyal quoi ndax c'est pas la première fois mu tegu suñu combat man nag booy remarque moom la woon kon tamit même chose rek ñu ko ci gërëm di sant ñëpp di ñaan yàlla mu defal ñun ndam.